yi gannaaw bu nu sante sunu borom subhanahu wa taala julli ci yonenteem ba seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla nanu yàlla boole jéggal tomb bu ñuy fàttalante dañu koy tënk ci ne lislaam mooy diine ji nga xam ne kuy seet ak jub ak maandute ak tolloole lu war a tolloo lu nekk danga koy fekk bokk na ci la ca gën a fës ca wàll googee mu gën a maandoo lépp lu ñu tuddee diine gën caa mën a tolloole lépp lu war a tolloo gën caa maandu mooy day ànd ak nit ki fu mu dugg di ko ko sàmmloo ba agsi sax ci li nga xam ne nit ki moo ko fàggu wut ko yàlla jox ko ko loolee sax dafa am lu dafay am lu mu ko cay joxañ mooy sañ na caa jëfandiku bu fekkee lu ñuy lekk la sañ caa jëfandiku bu fekkee lu ñuy naan la waaye daf koy tere mu ñoq-ñoqal ñoq-ñoqal moom mooy dëgg-dëgg yàq ñoq-ñoqal nag bi ñu ko dee tekk rek mooy luy dem te demut fa mu war a jëm moo ca gën a gàtt wala weesu fa mu waroon fa nga waroon a yam loolu nag bu ñu ko déggee xel war naa dem ci lii xew ci jamono ji te fan yi mu ràññiku lool di di ñëw ak a ñëwaat saa bu jamono ji tolloo fii bokk yi saa bu nawet wàccaa ba jaas upp ba ñax mi wow koŋ dañuy daal tàmbalee dégg ay njommite ci dëkk yu bari dëkk yi nga xam ne fa seen doole toll seen kattan tolloo li fa mooy seeni dëkkuwaay ñi ngi koy jële ci àll bi yett gayet ay xer ay laa akum ñax di ca suturlu fan yi nag ñuy dégg ay warab yu bari yu njommite loolu di dal mooy lakk mu mel ne jullit yi nga xam ne yàlla dimbali na leen yekkal leen bàyyiwuñ ca xel lu ko mat la te moo ne ña ngay ñoq ñoqal ñoq ñoqal ba mooy lan saa su nekk ñi ngay joxante teraanga yu rëy rëy yenn yi mënees na ko wane ñu ne ma nga ne yenn yi buñ ko wane wutit des na ko wax ba ñëpp xam ko ba mel na ñu ko fekkee woon mu leer ci seen bopp naññ te moo ne bu fekkee lu ñu jëfandikoo la di ko lekk léeg-léeg nga dégg ñu ne diw topp too na lu toll ci téeméeri xar yoo xam ne defar na ko ba mu mel na mu war a mel mu yët ko diw ñu wane ko léeg-léeg ñu ko koo xam ne danay lekk ndawal waaye du lekk yàpp danay lekk ndawal waaye du lekk yàpp ndax dañ ko ko tere baaxut ci aw yaramam kooku lu muy doy téeméeri xar loolu moo tudd dëgg-dëgg ñoq-ñoqal bokk yi kooku bu geesu woon ñii wax na ñoom dañoo jommi ba amatuñu fu ñu dugg ci bitti lañuy fanaan yaram war naa daw te moo na ñooñu li ëpp ci ñi jommale ba amatuñu fuñ dugg di fanaan ci ndànd foy-foy ak sedd bi bu ñu wootee liggéey de kenn du leen ci jiitu bu ñu wootee kenn du leen ci jiitu bu ñu laajee kenn du leen jëkk a joxe ak lañu koy néew le néew le moo tax ñokk ñokk ñokkal mooy la ca gën a ràññeeku. def mbir foo xam ne mënoon naa jëm feneen fu ko gën a yayoo li tax mu mat a woy moytu moytu nag yàlla ci alquran al karim nee na ñi leen jiitu woon te daan jëfandikoo ñoq-ñoqal ñu ci bare bari nee na moom ci kattanam ak coobareem ca la leen alage ndax njëppite dellu waxaat ne ñiy ñoq-ñoqal bu ëllëgee ñooy doon ñooy doon ñooñ sawara bi ma jëkk a wax mooy wa ahlakna al musrifin bi ci topp mooy wa anna al musrifina hum ashabu naar yàlla nañ ci yàlla musal dellu wax ne kuy ñoq-ñoqal di fab alal di ko yóbbu foo xam ne mën na faa bañ a jëm am na fu ko gën a ñor yàlla day maandu ci moom lum gëlëm-gëlëm xawma ku koy gindi waaye du doon yàlla te yàlla kum gindi ku wut kum gindi wut du gindi ku mukk wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursida wa man yahdi llahu fa huwa almuhtadi waaye fii dafa wax ne inna allaha la yahdi man huwa musrifun kazzab dellu wax ne yàlla day maandu ba set wicc ci koo xam ne day ñoq-ñoqal yudillu kadalika yudillu llahu man huwa musrifun murtaab nga xam ne fa muy def alalam suñ ko waxatul rek duutu ko fa yóbbu te ñooña mën nañ ko bañ yittewoo noonu mu amee ci ñi jommi di lakkale noonu la amee ci ñi amee wéri di koo xam ne dañu leen ne du wér mukk faj mu sax lay am léeg-léeg sax lu daw yaram am ci ndax léeg-léeg ñu takk ay rajo ci wata naan dafa am mbokk muñ yalwaanal nangam ak nangam moo ne am na ku leen romb ci wataam du yóbbu lu bari fi barab di ñoq-ñoqam te kooki ak wéradéem googu yi nar a dëkk ak moom ba ba muy faatu it buñ nee ñëw leen kenn du ko fa jiitu buñ nee indi leen lu mu néew néew dana làmb lam am joxe ko toog jàpp féete ak yàlla moo tax sëriñ bi ne ci ab ci mbindam bu kenn ñoq-ñoqal waaye di leen def lu yam loo xam ne ku ko tàmbali da nga ko mën a saxal te way ca deng muy daal loo yittewoo ci sa alal nga faj ca sa soxla te la ca des desal fa ñeneen ñi nga xam ne ñoo la ko gën a yittewoo fuuf te yaakaaruñ ko fenn te yow yaa ngi ko fa denc wala takun mufarritan bu kenn ëppal di ñoq-ñoqal aw mufrita mooy ngort ngort ba doo lekk doo naan it santaaniwu ko bal istaqim fi sunnatin lu ci nekk teg ko ci yoon la nga ca jëfandikoo na nga xam ne moo cee sa wërsëg la ca des keneen walla ma nga ca ndax nee nañ lu mat fukk rek wàllu keneen a nga ca bal istaqim fi sunnatin wa aqsita maandu xam ne yàlla mooy dogal te day maye séddalewut saa bu la yakkalee xamal ne am na koo xam ne ma nga toog diñe wala mu fande moo tax ci joxe azaka sax bu ñu demee ci alxuraan nañ ci fekk joxe leen asaka waaye nag bu leen sa ñoq-ñoqal loo xam ne da ngeen koy xalaat ëllëg wala nit ñi di ko nettali wa atu xaqahu yowma xasaadihi wala tusrifu sëñ bi jàngale ko ci bi muy jàngale azaka ne bul seet la ca yées nga xam ne kenn du ko soxla mooy sàggante gi mu doon wax ak ngort ga waaye bul seet la ca gënit ba sam xel du ko fàtte waaye seetal la na ci digg ba nga xam ne koo ko jox dana ko soxla te du la gaañ mooy ne ñàcc rek ci aw yoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gën koo leeral ne kuy lekk na lekk ba suur te bañ a regg ndax regg ñoq-ñoqal moo ci yóbbu nit kuy saraxe it bu mu tàmmal ñami sarax loo xam ne du ko mën a wéyal bu mu bu mu def ci ñoom seen yaakaaram daal ci ñoom ba saa su ne ñuy jàpp ne bu ñu demee barab danañ fa am nangam seen yaakaar di tas na doon lu yam bu mu ñoq-ñoqal ñoq-ñoqal la mu koy indil mooy du ko mën a saxal waaye kuy solu it nay sol rek col mu baax mu set waaye nangam rek lay sol saa su ne ñoq-ñoqal la ndax am na ñoo xam ne waxuma la lu ñuy sol waaye lu ñuy lekk ba mën a solu sax génn amuñu ko kulu wa tasaddaqu wa albisu fi gayri israaf gannaaw suñu borom nee na laqad ahlakna almusrifin yàlla na yàlla musal ci ñoq-ñoqal mooy alal jiy dem te demut ci lu kenn xam rek demut ci lu kenn xam mooy fa muy nekk mën na faa yàgg lool tëdd fa ne nemm te du fa liggéey dara te moo ne am am la tudd bu ñu la lay am bu ma teg fukk nee nañ da ngaa war ne keneen am wala ñeneen am moo ne ñi ngi koy jàngale ci daara yi de ci dongoy daara yu jëkk yi xaw ma nag yu léegi yi nga xam ne léegi dañoo cinq ku ne day am lu na jëpp bu njëkkoon daal dongob daara bu nekk lu mu am dongo yi dañ koy wër gëmloo ko ne ñoo yow a ko bokk li ëpp na la mu daal di joxe li ñuy wax kullu kooku ne moroom ja maala laaj kenn ke ne maal laaj lu mu néew néew daal ku ne dana ca am loo xam ne duñ la mënuñ duñ mën a wax ne diw lam yoroon amuñu ca loolu jullit yëpp war nañ koo jàng ba mokkal ko tudd nañu lakkale tudd ñu yor ay garab paj muñ mu dul wér te moo ne alal la ñu ne gàññ moo ne am na ñoo xam ne soriwuñ ñu ngi fuu rek yaakaar li ñëpp yaakaar waaye ñi ngi jàmbat ndox muñ naan te mënuñu ko am te moo ne ak yomb yóbbul leen ndox ñu ne ko naan aajowut génn ci jiba waaye baat rek mën na ko baat kese benn baat rek mën na mën naa faj seen soxla kon boog ku yàlla dimbali yàkkal ko ñaag ko ba muy ñoq-ñoqal ne xam ne na xam ne am na ci ñoo xam ne tey jii taaluñu ci suba gi taaluñu ci bëccëg bi te yaakaaruñu ko ci ngoon gi mu bàyyi leen xel bu baax ñoq-ñoqal nag jikko yi lislaam gën a bañ day ànd ak moom di dem ndax njistal la ci jiitu mooy luy dem te demul fenn mu jàpp ne yàlla mi ngi ko koy bindal te yàlla bindalu ko ko fenn lu dul ak neen bu waree fayu daal du fayu ndax day ànd ak njistal wane ne moom ku koy laaj boo ko laaju ci kanam nit ñi rek du la jox bu ko de bu ko defee boo ko laajee mu ñoqal ñoqal ca am lu mu àndal lu ñuy wax déggtal bëgg ñu ne moom daal saa su nekk dana joxe nangam kese waaye waaye lam ci doon bëgg kon am na ko mooy nit ñi di ko waxtaane rek séqut ak yàlla dara ci pay ëllëg waaye it ndamu it dana ca am di wan nit ñi ne leen moom moo leen gën a moo leen di gën a moo leen di gën a teel a yow moo leen di gën a mujj tëdd di kër kër yi moo ko tax a am lem am te déedéet su doon loolu dana am ñu ko ëppale fuuf am lu mu teel teel a yow dana am ñu tasal ci bàtt mi ñuy dox lu mu guddee guddee tëdd dana am ñoo xam dana tëri bàyyi leen fa kon boog yëg-yëgu ne am na ay mbokk yoo xam ne du ñuy bokk sax waaye ay bopp lañ ñu ngi ne gàññ gàññaaral mënuñu dara te yaakaaruñu leen dulul yàlla kon ñoq-ñoqal wuru fee xaj yonent bi nag nee na woon sallallahu alayhi wa sallam yàlla ngi nii mi ngi leen di moytuloo yatt yii yatt yim lim bu ca yées sa morom nga ne bii waaye ba mu ci mujj a tudd mooy ñoq-ñoqal rek inna allaha kariha lakum thalathan alqiila wal qaal nee na ñooy ak nee nañ ak jiw nee na rek def ko liggéey ak loolu ak ku yàqam waxtaanu boppam la waaye foo toll naan lu tax lu tax lu tax rek lu ne mu ne lu tax nangam ah ba yeneen ci bi taxawee ne lu ma waay laaj ma tontu la de nit ñëw ba koo tiiñal te mooy ki nga xam ne du wax te fekk bakkanam la jiital wa maa yantiqu anil hawa ba koo tiiñal ñëw ne ko waaw dama lay laaj mu ne ko bismillah mu ne ko fu ma jógee bi may ñëw fii ak bu ma jógee fii fu ma jëm ak nu ma sant aw tur moom ñëpp ko bokkale ñëpp ibadullah lañ ñi- koo ne abdullah man war naa mën a wuyu su déggee baat bi yeneen si bi ne ko cig mooy yàlla nga jógee te it sant wi ñu la jox du saw sant ndax jug du sa baay te boo jógee fii sa war a nga jëm aaya ba daan ne yaa ayuha alladina amanu laa tasalu an ashyaa in tubda lakum tasukum kon kasratu suwaal lu tax lu tax lu tax ci yi yées la bokk laaj li muy jaadu jaadu lu lu jafe jafe la ndax am na ñoo xam ne waruñoo laaj dañaa war na cel waaye ba mu ca teg mooy alal juy dem ci maali foro di dem noonu rek mu yaakaar ne ma ngay am ak pay ëllëg te dara du ko ca am yi nga xam ne daa jar geesu ay bokk walla ay bopp suñ mag moo ne woon koo xam sa mbokka soo xamee lu ngeen bokk sa boppa tudd nañ yu bari waaye am na ci ay warab yoo xam ne ndoxum taw ba bàyyeegu leen ndoxum taw ma tàggoogut ak ñoom ci ndox mi la ñuy yendu di ci fanaan ñooñu it jar nañoo geesu waaye fi ma koy tënkee mooy puukare wu moom xam ngeen ne du walle ñoq-ñoqal fu nit ña daje bu ñëwee rek ñu ne diw ñëw na mu tàmbalee génn di joxe mën naa am ci ay yoxoy nit la koy teg waaye teggu ci loxoy yàlla nag yàlla da koy bàyyeeg ñooñu bu ëllëgee ñooña ñooña war koo fay te kat ëllëg joxante teraanga mën naa bari fii lool santante bi bari waaye koy jox na yàlla rek tax ndax ëllëg kat teraanga yooyu yàlla nee ci alxuraan ku ne day am lu ko doy sëkk ba du taral jox kenn teraanga xanaa lu ko diw ameel kay lay jéem a jël li kulli mri'in minhum yawma idin sha'nun yughnihi kon bokk gannaaw jublu nañ foo xam ne fii duñ wàññi duñ wàññiku mukk saa su ne dañ koy gën a jege nañ jàpp xel bu baax a baax a baax ne ku ndékki ba suur bu mu ñoq-ñoqal ne wër ñamu dendal ba xam am nañu réerut biigam déet dana fa am waaye ku añ ba suurit bu mu ñoq-ñoqal ndax am nañu ndékkiwut waaye ku reer ba suurit bu mu ñoq-ñoqal ndax am na ñoo xam ne añuñu loolu mën naa yóbbaale mbooleem yi nit ñi soxla te xamuñu fu muy fajoo ji am nañu wéradi wéradi gu dëkk ak ñoom ba faaw dañuy àgg di leen yalwaanal ci mbeddi dëkk boo xam ne bii jaamu yàlla tax ñu sanc ko nii ruux yi di namme suuf si di bëgg fu mën a nekk bu tàggook borom ñu indi ko fi yërmande yooyu daf fee war a feeñ dafa war a fees jaaru woon na waañu wu mag woo xam ni wi dañuy togg añ ak reer ak ndékki waxuñu nag ku ñëw ñu tibbal ko waaye nos ko nos boo xam ne ku ñëw te soxla ko ba ba añ di weesu ba ba reer di weesu bu ñëwee fekk ko fa jaaru woon na ndax xéewal yi mate na ko waaye jaaru woon na it euh, foo xam ne fii ku yore wéri dugg mel noonu wala amut lu mu ko jënde su fa demee ñu jox ko ko xéewal yi it laaj na lu mel noonu waaye ñi nga xam ne dañuy jàmbat saa su nekk fu ñuy jël ndox muñ naan it loolu moom jurut benn coono bi baat kese mën na ko bari na koñ yooyu aw nit a nga fa ñoo xam ne buñ ne leen fexe leen ba ñi fi amut ndox am ko baat ak tontu lay doon da cey sawar lool yàlla nañu ko yàlla déggloo waaye ñi nga xam ne it jommi nañ ba noppi moom ñoo gën a jàmpale boroom kër boo xam ne nee na moom moo ko njabootam amatuñ fu ñu fanaan foofu sutura du fa am waxaale wuñ lañ doon jëfandikoo lépp yaakaaroon ko kenn nawet ba lépp naaw na foofu nag xol yëpp war naa jóg ñu taxaw leen euh, taxawaay boo xam ne da ngay jàpp ne bu la daloon da nga ko yittewoo yàlla noonu yàlla dafa dëgg topp te musul seytaane ki pakkam ndax pakke pakke seytaane rek ak ab liggéeyam mooy waral nit di ñoq-ñoqal ndax yàlla nee na ci alxuraan kuy ñoq-ñoqal bu yàggee yàlla boole ko ci daayira bi seytaane bokk kon bu leen ñoq-ñoqal wala tubadir tabdira inna almubadirina kaanu ixwana alchayatin wa kaana alcheytaanu li rabbihi kafura yàlla nonu yàlla defal dégg ak topp yaxfiru llahu lana wa lakum wa lisairi almuslimina amin